bisimilaay may jóge di kañ jigéen ju baax borom sañ-sañ jëfe diina borom di bañ lépp lu ñaaw ba am jigéen ju baax nangoo mu ñël sëriñam bari ci oy cërëm fa wàddu wele ko mu ñël maam Usmaan bari ci loxo ca kaw roy leen ci maam fa wàddu wele roy ci maam Fawadu Wele borom ngeen lii amalu ne ah, ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax bi nuyu mbokk àddina bi yëpp rawatina nag mbokku xadara maam Seydi Hadji Malick nekk fii ci Amérique waaye mbokk yi ci diaspora bi yëpp ah, suñu sang bu tedd bi nekk fii ci Amérique Serigne Ahmed Sy Habib bu maam Seydi Hadji Malick moom mi nga xam ni moo initié projet Al TV bi macha allah def ci ñaan ba ñu nekk ci liggéey bi macha allah di ci euh, jàngantu euh, di ci gërëm bu baax suñu mbokk Cheikh Dieng ci liggéey bu rafet bi ak équipe technique bi mu ko àndal yëpp incha allah xam naa di dinañu am jot euh, ñu invité leen ñoom ñëpp ci plateau bi ngeen mën a gis ñi nga xam ne ñooy def liggéey bu am solo bi waaye ci jamono yi xam ngeen ni duñu yëkkati suñu kàddu te Eh, ñaanalu ñu aji dawlu yi nga xam ni jiitu nañu macha allah rawatina ñi nga xam ni eh, génn nañu àddina ci mbas mi ñu ñaan yàlla mu yégal leen ci aljana yi gën a kawe ci barke yonente bi salallahu alayhi wa sallam waaye ñu ngi seet tamit ñi tëdd feebar ci hôpitaux yi ak ñu nekk ci kër yi tamit di jànkonteeg ay métit di leen ñaanal yàlla suñu borom wéral leen eh, ci barke Seydina Muhammad salallahu alayhi wa sallam di seet suñu mbokk yi caabi feti ginnaaw di leen ñaanal yàlla delloo leen ci seeni njaboot ak seeni sago ah, defal leen ay xéewal yu yaatoo yaato yaatu waaye di ñaanal ñi nga xam ni itam ah, ñu ngi ci diaspora bi yëpp yi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi nga xam ne dara yëkkatiw leen du dul daan seen doole ñu ngi leen di ñaanal lépp loo xam ne lii ñu ngi koy wut suñu borom yombalal leen ko moo ànd ak wér ak gudd fan ba ñu ñibbi waat suñu réew waaye di ñaanal àddina bi jàmm di ñaanal suñu réew ci Sénégal jàmm waaye Amérique bi ñu nekk ñu ngi ñaan jàmm tàbbi fi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ah, tey nag kàddu jigéen ñi ci Al Maktoum TV ah, daf leen indil ah, sujet bu am solo boo xam ne bii ñu ngi war a waxtaane toujours rek xale yi éducation bi nga xam ni war nañ ko def ci suñu ay doom ñun parents yi ak éducation bi nga xam ne suñu ay doom ñu nga jël ñu nga koy jëlee ca école ya waaye itam euh, métit yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel aussi fii ci biir dëkk bi ak euh, ci école yi lu mel ni racisme bi euh, te ñu sonn ci lool te vraiment kenn déggu leen kenn déggul seen kàddu fenn tey jii loolu la ñuy waxtaane ma am nag ñaari invité yu am solo yoo xam ne ñu ci dëkk bi di ay ndaw waaye nekk ci itam ay parents d'élèves kenn kii di Alimatu Dieye madame Seck incha allah euh, dina dugg léegi présenté ak Kuku Diop moom itam ñu nekk fi nekk ay ndaw waaye yàlla defal leen sutura ñu yaree fi seeni doom euh, ñu bëgg a xam expérience bi nga xam ni euh, def nañ ko fi am nañ ko fi ak seeni doom ñu mën ko partager ak génération bi nga xam ni ñu ngi ñëw soxna Alimatu asalaamualeykum waaleykum salaam soxna Fatou di nuyu di la ziar di kontaan ci invitation bi ñu def ñu ngi ciy kontaan bu baax di ñaan yàlla yàlla ci dugg ngi ñaanal ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñu jàppale ba ñu egg ci ci sant suñu ñaari waajur di leen ñaanal fa ñu ñaanal suñu bopp ñaanal suñu njaboot ñaanal zawiya bi euh, jiital imam di suñu imaamu président ñaan yàlla dafa ñu ñu delluwaat ak suñu tàggo maa ngi jërëjëf soxna soxna kuku bismillah kuku jóg asalaamaaleykum warahmatullah ajaa fa bu baax mu nga yëkkati baat bi tuuti asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, Adja Fa lay ziar bu baax a baax di ziar euh, équipe technique bi di ziar it euh, sama mbokk mi ma fekk fii muy soxna Alimatu di ziar tamit ñëpp ñiy seetaan émission bi di rafetlu trop sa liggéey ci communauté bi communauté sénégalaise bi communauté tijaan bi di la ñaanal yàlla yow it yàlla gën a dëgëral sa taxawaay di ñaanal yàlla suñu kilifa it euh, yàlla may leen gudd fan ak wér euh, gën a dëgëral seeni taxawaay jërëjëf jërëjëf soxna Koukou Euh, tey nag ñu fas yéene waxtaanee euh, éducation xale yi fii ci diaspora bi mu nekk lu metti loo xam ni euh, yar fii sa doom ci àll bi bokkul ak yar ko Sénégal ndax Sénégal ñi lay dimbali ci yar bi dina bari waaye yar ko fii metti na ndax xale bi ngay yar dafa mel ni bokkul leen culture yow ak moom ñu gis ne vraiment am na parents yoo xam ni opté nañu pour bàyyi fi seeni doom nekk ñoom yar leen fii ci dëkk bi ba ñu nekk mag am na tamit parents yoo xam ne dañu opté yóbbu seeni doom Sénégal ba xale yi màgg ñu dellu siwaat fii loolu itam dinañ ci ñëw incha allah yéen ñi nag ngeen am expérience yaree doom yi fii euh, ci Amérique nekk ak ñoom macha allah ba ñu euh, jëm mag euh, macha allah yéen expérience boobu ndax metti na wala mettiwul ak yan problème ngeen di jànkonteel ak xale yi ak euh, communauté bi rek waaw soxna euh, Faa ñu lay déewaat baax la ziar di kontaan bu baax di la ñaanal yàlla na yàlla fa buñ fi wax loo xam ne rek dañu koy xeeb euh, ci benn côté soo déggee ma ne métti na parce que fii moom boo fi yaree sa doom comme ni nga wax rek boo xooleen presque coaching parce que li ngay bëgg a ak yow ni ñu lay yaree ak yow ni nga bëggee yaree xale bi ci dëkk bi ndax nekk loo xam ne lu xaw a difficile la mais nag da ngay dolli ba nga xamee ne xale bi juddoo ci yenn euh, anam ci yow nga nekk jullit nekk doomu jullit côté boobu dina xaw a pour man parce que da ngay commencé rek ndànk ko yaree dina metti nag mais da ngay commencé kooku jàngal ko euh, boo ko jàngalee alxuraan xam naa loolu moom pour jiitu jiitu dëggantaan dina metti mais su commencé jàng soo ko commencé dina ko meek mu am daaw ngay wax ak moom di ko ko dugal yow li xam ne moom ma naan dina xaw metti parce que loolu pour nga dugal ko si xale yi des fois mu xaw compliqué des fois nag mu xaw man ñuy jëm mag laay gën a parce que déjà xale bi bu paasee dix ans rek li bëgg a génn di jamono boppam ak yooyu noonu kon foofu dina xaw a compliqué man nee naa bu ma woon trop mais léegi bi xale bi di paase laay gën a parce que léegi day commencé di demal boppam mais toujours rek da ngay dëkk di wax si ñoo xam ñun xamuñu lii ñun man de sama doom tout temps dama naan ko doo am xaritu américain sam bopp ñooy sa xarit mooy nga xam ne ñoo ñu bokkal dëkk ba tax na ñun ñu ngi liggéeyee nii si zawiya bi sax booloo baax na ci parce que loolu tam dina dimbale xale comme ça ñoom seen ëllëg ñu mun ko defar parce que ñun mun naa ne nañ ba pare kon yi fi mu toll ñoom lañu war a ba nga xam ne ñun li ñu àndee ñu fexe suñu doom yi ñu ànd xarit boobu nekk ba nga xam ne duñ ko uti feneen man pour man sama côté loolu laay ci côté boobu daal laay fay tout le temps di ci xeet ba sama doom du topp benn américain bu dul day topp wax dëkkam du waxtaan ak ñoom du seet ñoom bañ naa ko ba sama famille sax dañu am groupe famille mais dama def tout xale yi dañu ubbi groupe famille ma dugal ko fa léeg-léeg dañuy wax dara du ko xam mu ñëw laaj ma ko ma ne ko lii ak lii la bul def lii bul def naaj ko jéem a yar ci ba ci école am am naa ay xarit yoo ne tey bu defee loo xam ne jaatawul mun nañ ma ko jubbanti parce que may naa leen mun nañ ko jubbanti ba dul ñemee def daal mhm. benn dama ko ne toujours ni nga ma respecté man mi moom lay amee xale xale def ku lay jàngal danga koy respecté sama yaay waroo ko respecté comme tey sama waaw sama doom tey ku ko gisoon wala yow tey gis ko muy def lu dul dëgg yoon may naa la nga ba nga hmm. xamante ne du dugg ci yenn kàmb yi nga xale yi na yu metti na si si sa lay kattan ak hmm. ñaar yàlla dimbale la ci saay boo dundee ci ko na la ci dimbale ba nga xamante ne yar ma yóbbu ci Afrique mën naa am ko am doo ah, sol lu yenn sol waaw man loolu waa jàppa waaw ah, bëgg naa xam sa expérience yow tamit macha allah ngay eh, jàmbaar eh, di liggéey sa liggéey nekk aussi ci zawiya bi di ci def liggéey bu am solo depuis ba ñu tegagul première pierre ba tey macha allah ak ñi ngi ko àndal ñëpp waaye en tant que single woman tamit mu nekk loo xam ne lii easy wul pour ngay raise euh, pour ngay yar say doom Euh, ni ko bëggee fii yow kenn ci ci Amérique bi expérience bi lañ bëgg a xam um, Adja Fa waa expérience bi moom vraiment lu ma si mën a wax mooy yomb na yombul waaye sant yàlla rek parce que dëkk bi defe naa ku fi yor doom dangay bàyyi lépp si loxo yàlla yàlla yàlla moo ñu ciy jàppale bon man encore une fois choix la woon parce que man samay doom demoon nañ Sénégal ba ñu gënee nekk xale mais après bi ma nekkee man kese ma gis ma gis que ni euh, kii na man rek maa fi nekk ñoom ñu ngi Sénégal ci laa indiwaat samay doom dama leen indiwaat parce que benn bëggoon naa nekk ak ñoom bugoon naa am relationship bi nga xamante yaay doom dina ko am ah parce que bëggoon naa yaral leen ni ma leen bëgg yare quoi comme man mm-hmm. est ce que bi nga leen indee jóge leen Sénégal est ce que yow gisoon nga ci ñoom li nga xam ni bëggoon ga ko ci sa ay doom en fait man bi ma leen indiwaat ay xale woon donc euh, amul woon benn benn lenn lu nekkoon si ñoom lu ma woon euh, dindi waat wala ay xale lañu woon ku ndaw ki trois ans la moon kii kii la doon dugg keneen kii cinq ans la amoon donc ay xale lañu woon amul woon vraiment te yàgguñu fa noonu deux ans lañ fa def am ñaar mais métti na parce que ci man en tant que femme single parent voilà métti woon na parce que maa ngi jóg man maa leen di yóbbu école maa leen di jëli maay euh, yóbbu ci docteur en fait maa doon def lépp quoi mm-hmm. mais yomboon na parce que samay doom lañ dama ko bëggoon donc lu neexoon la ci man daal jafewul woon benn yoon si mm-hmm. parce que kii bi ma si dugaloon enthousiasme bi ci nekkoon ak peut-être bëgg samay doom bi ma bëgg samay doom moo tax que ni metti woon na mais ça va sant yàlla léegi ñoom ñaan ñëpp màgg nañ ñu ngi ba am ban âge. Euh, macha allah ku ku mag ki am na 16 ans ku ci topp am nag di âge critique ci ñun ci dëkk bi parce que da ngay def ci ñoom xëy na base ci biir kër gi waaye soo génnee école bi tamit am na lu muy def ci ñoom mbedd mi am na lu muy def ci ñoom loolu naka ngeen ko mën a euh, wàññee naka ngeen ko mën a rëccalee xale bi daal. ba euh, poids boobu bañ a tegu ci koom ba changement yu bari mën na ñëw ci moom en fait man faa man philosophie bi ma am ci li may doxalee ci sama waa kër mm-hmm. mooy que samay xarit ñooy seeni xarit mm. samay doomu xarit ñooy seeni xarit donc man bañ naa ko ba samay doom fu may dem damay ànd ak ñoom su ma nekk invité foo xam ne mënuma leen a yóbbaale du ma dem bu may dem zawiya ba dama leen di yóbbaale bu may dem seeti sama xarit dama leen di yóbbaale donc seeni xarit ñooy seen xarit bon na nag parce que léegi màgg nañu mais sama doomu xarit yëpp depuis bi ñu nekkee xale ba tey ñooñu ñooy seeni xarit donc ñooñu ñu màggandool mais nag dinañ ci am yenn ñenn ñu ñuy bokkal classe ñoo xamante ne dinañ xaritoo ak ñooñu mais toujours en est man damay damay involve ci seeni affaire ba nga xamante ne seen mm-hmm. xarit yooyu sax même bu ñu dee ay américain lañ damay def nu ma leen di xamee mais yaatal dama leen di yaatal nu ma leen di xamee fi mu ne nii tey bu ma nee damay dem tasejeeg sama xarit diw boo xam ne américain la xarit boobu damay yor numéro téléphone yaayam damay waxanteeg yaayam damay du parce que tamit munoo leen ñu leen nee ni que duñu duñu nekk ak xale yi dëkk bi loolu moom ñu ko wax munuñu nag man lu ma gënaloon mooy que sama mbokk sénégalais seen doom yi rek lañuy ñuy nekkal mais ci dëkk bi la dëkk dañuy évoluer ci dëkk bi donc munuma leen tere américain yi Mm-hmm. loolu la ma sagoon nag ma def ko mais mënuma ko donc damay xool nu may seen xaritu américain yi dama leen di invité ñuy ñëw fii damay xool nag vraiment yàlla suturaal na ma wax dëgg fa neex yàlla ba gisaguma ñu ànd ak xarit américain boo xam ne war naa cee tiit ba nee leen ah kii bu leen ànd teeg moom wala kii defee leen nii mm-hmm. bon mais ñooñu ma gis la am na ñoo xam ne tamit doo leen gis am na ñoo xam ne doo am accès boobu ci seeni parents parce que mm-hmm. nekkuñu seen i parents ñeneen lañu ñu mais toujours en effet dama leen di wax ni que yéen ak ñii du ngeen benn mm-hmm. da leen sóoraale yéen da ngeen a am seen diine da ngeen a am seen culture lii ñun lañu gëm nii lañuy doxalee donc yéen ak fu ngeen munti nekk ci àdduna bi ma nekk feeg ma bañ fi nekk ma wan leen ginnaaw bañ leen ma bañ a fekkee doxalee leen nii defee leen nii mm-hmm. am na solo euh, am na solo waaye euh, ñu amoon benn programme bu am solo boo xam ni ñu ngi ko amaloon xale yi euh, li ci commencé deux ans ba jëm kaw ci zawiya Maam Seydi Aj Malick bi nekk fii ci New York City sëñ Mansour Sy Dabakh initié woon ko tegoon ko ci loxo Baye Waly Ndiaye soxna Umu Sy Jamil liggéey si liggéey bu am solo moom itam ci ci xale yi Bayi won fi itam programme bobu soxna alimatu ngeen fexé ba dugal ci ah loolu amoon na njariñ ci ci sen doom ci éducation xalé yi waaw adéatu pa lolu amon na njariñ ba tay ñi ngi ci dox bayi won ko parce que déjà biñu ko commencé waté sax biñu commencé rek defé na ben semaine bi ñu def comme euh, deux semaines après le problème bi commencé après ñu ñu ngi ci dox waaw ku melni Serigne Kader Sarr ah, moom mi ngi ci dox des fois ñu ngi ciy communiqué ak ñëpp defe naa kooku tam war na ci xam dara parce que pourtant ñu ngi ciy wax ñoo bokk dañuy def ñoo bokk initiative bi ñu bëgg pour suñuy njaboot yi te loolu man gis naa ne buñ ko continuer programme bu baax la ndax salon mu daan na leen dajale ci salon ba ñu daan def lu nekk lu nekk la leen daan def loo ko xam nga mm-hmm. xale lu bari man dama daan waxtaan ak bari lu ñu war a loolu incha allah bu yàlla defee jàmm lépp ubbeeku ci jàmm ak la dinañu ci delluwaat comme ni mu ko daan defee ñu jéem ko dekkalaat ba parce que xale yi bëgg nañ ko te arrangé nañu tamit ñun tamit loolu moom bu soobee yàlla bëgg nañ ci dellu ndax am na avancement ci xale yi ak suñu suñu bopp dinañ waaw te bëgg nañ ci gën a xóot tamit ba xale yi di demalante di fekkalante parents yi tamit gën a xamante parce que xam naa ne sax am na si parents yoo xam ne sax xëy na miinante wu ñu miinante wu euh, kon ñu ngi liggéey daal macha allah. macha allah kon bari na ci euh, ci seen njaboot yi ñoo xam ni euh, fréquenté nañu loolu noonu ba vraiment mujjee bëgg sax zawiya bi. waaw ah, loolu mhm. mooy loolu moo di bëgg zawiya bi moom wax dëgg yàlla. waaw man man fa suma waa kër dama damay tout le temps dama leen di wax naan. Euh, man sama waa kër ñoo tax may dem di julli ji jumaa korite ak tabaski parce que Sénégal musuma woon julli ji jumaa korite ak tabaski mhm. mais bëggoon naa sama waa kër ñu dem julli ji juma te man rek ak ñoom ñoo nekk donc falee ma jóg yóbbu leen donc mhm. ñoom dem nañ ba zawiya ba yenn saay man su ma nee du ma dem tey zawiya ba dañ ma naan wool ñu taxi ñu dem dugal ñu taxi ñu dem après taxi bi jël si wallaay ndeysaan dem zawiya ba nekk ak xale yi ñuy nekkal ci biir zawiya ba oustaz Souley def na fa ay programme euh, vacances ñu dem di jàng alquran euh, tonton Waly tamit def na fa ay programme soxna Umu tamit am na ay programme yu bëri vraiment defe yàlla mi ñuy suturaal daal ci suñu communauté bi ñun ñii ñu am ay programme yu mel noonu pour xale yi parce que c'est très important ñu xam tamit fi ñu bokk fi ñu jógee ak fi seeni waajur di si seen waajur di dox may ma mhm. wax su ma nee damay dem réunion xaw ma ko man jeune Tidiane laa bokk dama war a di dem seen réunion di xam li xew mhm. def nañu réunion mu dugg ci réunion bi wax xalaatam président euh, Diop Lambaye ne ko lii laa xalaat ci gàmmu bi lii nga war a def li en fait ñu dugg involve nañ ci suñu communauté bi te am na ñu bëri ñoo xam te ne bëgg nañ ko vraiment te amuñ ko te loolu gannaaw même buñ ko defee ñin bu fi zoyo bi nekk woon it xëy na tey loolu yëpp duñ ko am donc nañ ko sante te gërëmee ko taxawaayu zoyo bi ci euh, New allah kon kon su ma déggee seen wax daal dafa mel ni zawiya bi am na njariñ ci éducation xale yi fii ngeen nekk ci euh, dëkk bi ndaxte du yomb waaye aussi xam naa ñu dem ci euh, deuxième partie bi mu nekk loo xam ni actualité la euh, di problème mu racisme fii ci Amérique mhm. waaye mu am beneen façon racisme boo xam ni ñun suñu doom yi mhm. ñu ngi koy dund ñu ngi nag masawu vraiment li nga xamni mo xew fi yëpp ci ay metti ci ay naqar ñi ñu ray vraiment ak ñëpp euh mëda yeeg yëpp ñi ngi tamit bokk ak ñoom lépp loo xam ne nii rek ñu ngi koy naqarlu ci société bi nekk fii ci Amérique waaye sunu doom yi di go through beneen forme racisme ci biir école yi te yëguñu ñu bari yëguñu ko ndax en tant que africain bu ñu demee ci école yi dinañ leen bulli maanaam dinañ leen tooñ dinañ leen ñaawal dinañ leen xas ba ci seeni tur ba ci seeni sant mu nekk problème boo xam ni yéen naka ngeen koy dundee parents yi ak ak ak élèves yi bay ci fi waaw ajëtu papa loolu moom xaw na am difficile tuuti moom man am na dara lu ma si dund parce que surtout nag xale bu demee si école boo xam ne bees la fa maa ngi mmh bi mu demee ci beneen école mi doog a changé école parce école bi mu nekk def na fa euh, first grade ba mu gradué fifth grade wala dem sixth grade sixth grade fu mu nekk nii début bi dafa compliqué woon fi man tout temps complain complain complain ba dama mujjee dem si école ba wax ak ñoom boobu miino guñ ko woon ñu koy doog gis ëpp mi ngi commencé di muuru moom moo muurul boppam benn jour sax mmh kenn am na ku ne ku ne taxaw ne day dindi muuraayam ma ne ko non non non ma woote ci école bi wax leen ko daal di fay dem. en tant que élève élève moo ko def loolu. ah élève moo ko def loolu. mu demee bu ma demee ma waxtaan ak ñoom après si la ma ci bi ne non non non loolu moom bu mu mus a amati mu ne Adama luñ la defati rek ñëwal nga wax ma ko. luñ la defati ma dem ci social worker bi wax ak ñoom ñi ma wax fa war a jaar yëpp jaar naa ko daal wax ak ñoom est ñu ne moom xam nañ ne sax amul problème mais des fois ci xale boobu lu mu ko tooñ noonu bu indi problème des fois mhm. problème yëpp mun wala suutaanam xanaan dara amee rek ma wala nga wax ko sa teacher ma waxee teacher bi ko et puis loolu nag après gisaatuma beneen problème mhm. mi ngi dem bi ñoom mais dem naa ba nga xam ne au début dama doon wax ne téema ko mais mmh. loolu débuté la woon rek woon foofu ay xarit ñu leen dégguloon li ma siy métti des fois sax bu nekk sax mmh. mmh. nga xamante ñoom foofu mais ñoom ñoo lay jéem a def yenn yoo xam ne yow sa mbokk américain yi duñ la ko def yu metti yu metti su koo xam ne yéen yéen a bokk dëkk xam nga africain la comme yow ngay africain xam nga kon tout le temps ñun da ngeen war a jàppalante ci loolu mais benn jour ñu ma ne benn suñu benn waa mbokk moo koy sonal ñu am nit bi ma demee jigéen waxtaan ak moom ma ko xam nga ñun ñoo nekk benn ñun ñoo bokk ñoo après problème bi rek leen xam nga mm. loo ci gis moo tax dama naan tout temps xale bul nëbbatu mm. loo xam waxtaan ak man ok bu ma nag xale bu muy nangam yoo xam ne meeku sax mais benn côté dinaa la déglu si benn côté boo xam ne bugguma tamit xale bi su amee loo xam ne ma ko war a wax mu mu koy nëbb di ko dem wax parce que man tout le temps damay wax sama doom bu la métti rek nang ma ko wax comme ça ñu xam dañ koy réglé demee euh, soxna kuku waa man faa man lu ma gis mooy que euh, loolu tamit des fois parents yi dinañ ci am part de responsabilité parce que di nga gis xale boo xamante ne comme alima li ko ci fekk nii euh, doomam am problème mu dem ci école ba lijjanti ko des fois gis xale yoo xam te ne lu mel noonu dina xew parent bi du réagir man samay doom seeni école dañ ñépp ko ma xam ñépp laa la mhm. chaque jour seen école bon ñoom ñaar ñëpp léegi ñu ngi jëm high school mais seeni elementary school dafa mel ni am na ñu bari ñoo xam ne ñu foogoon damay liggéey ci école bi ci école bi c'est normal. bu ma am dinaa fa dem def bénévolat jàppale leen fii jàppale leen faa macha bu dara xewee damay dem dama involve ci école bi ba maanaam même bu ñu defee dara sama doom sax balaa man may réagir ñeneen ñi réagir nañ teacher yi réagir nañ principal bi ñëpp man man damay wootanteeg ñëpp man même Amadou ñu nekk high school ba léegi numéro damay damay toog ba si yàgg bu ma xoolee mu missing grade bi wala mu missing ma email teacher bi bu respondul ma email euh, keneen ki bu ma email keneen bu ko kooku respondul ma email dinaa damay dem ba ci principal ba laay mujjee mm-hmm. tellement que dama damay bëgg xam lu xew damay bëgg xam lu xew man lu ma leen di wax may euh, sama ku jigéen ak ku góor dama leen di wax naan ñun ay africain lañ mm-hmm. ay sénégalais lañ mm-hmm. donc africain américain yi ñoom tout le temps dinañ ñu bul yi dinañ ñu wax yenn yi xale yi dañu am problème si école yi école yi problème yi ñu sax voilà lu tax ñu ñuy def yenn te te euh, black américain yi ñoo koy teg suñu doom yi

du fa nekk di xam nga kooku talu la nekk di daw di la di la di la def man ne ko tout le temps loolu mooy indi loolu mais jàpp leen ni ko luñ leen wax du leen def dara du leen taq fenn man loolu laa leen di wax chaque jour ma ne ko am na benn bés mu ñëw ñu ku góor ki am problème wax wax ñu ñëw ma ne ko lan mooy problème bi mu ne ma dafa wax ba tudd la te ma neen ko kenn du sama yaay mu ne dafa wax daal si ma ne ko mais li mu wax ci man wàññiwul dara mu ne mais man boo kenn di wax sama yaay maa ne ko parce que xam na ne bu waxee wax na la yu bëri faale woo ko léegi mu ne xaar ma tudd sa yaay pour nga réagir ma ko man mii di sa yaay bu la tuddatee bu ko réagir yow bu ko tudd bu la tuddatee wax ko wax ma ko te nga wax ko ticce bi man dinaa ñëw lijjanti ko depuis boobu man sama waa kër noonu la lu man buñ ma nee kenn xosi na ma sax ma wàcc ci école waaw kon kon kon kon su ma déggee seen wax euh, mbir mi jot la laaj jot parce que man euh, vivre naa expérience yooyu ak ay parents d'élèves euh, troisième invité bi tey ñëwul dina ñëw incha allah ndaxte teacher la buy liggéey maître la buy jàngale ca école ba bi sunu mbokk sénégalais mais am na ci parents yoo xam ni dinañ leen convoqué ci année bi yépp pendant six mois duñu duñu duñu feeñ pour wax leen rek seeni doom problème yi nga xam ne dañ koy jànkonteel am na ci xale boo xam ne pendant la ne ñu ngi convoqué papam papa ji mënul fexe ba ñëw si école bi pour déglu li ko euh, teacher bi di wax te mu nekkoon problème boo xam ne xale bi lañu xool yërëm ko xam ni xale bi dafa am ay problème xale bi du sangu xale bi du lekk lu baax xale bi du sol yére bu set xale bi dafa tilim vraiment di sunu mbokk il faut le dire donc genre parent yooyu nga xam ne amuñu benn benn benn jot pour dem seen école yu doom yi yéen lan ngeen ciy wax génération bi nga xam ne nag ñu ngi ñëw te ñoom tamit ñu ngi fi am ay doom comme yéen macha allah ngen ngeen ngeen jaar ci yoon bi ba pare. xanaa jàpp rek parce que lii comme lii ko ko daaneel il am jot bi dëgg nga am jot bi dëgg dëgg dëgg gis naa ni aadama école baa n g m o buntu kër mais dama daan dem ci école ba di volontaire ba école dañ ma xam am na tey photo yoo xam su m o leen ko wanoon tiice yi dañu amoon f e e xale yi waaye classe i yëpp mën lañ d ë l seen xaalis ma dem ñawal leen ak Sénégal tiice yeeg yëpp xam nga dañu sax benn museum boo xam ne dañ fa def sama photo ak photo xale yi parce que dañ ko defoon tellement que il faut nga am j o b man dama daan dem fii bu xale yëpp su ñuy dem suuf damay bàyyi sama liggéey même bi ma daan fekk damay dem liggéey damay bàyyi sama liggéey école bu sama doom yi nekk lekk nañ sama lekk dem naa fa yóbbu naa fa samay affaire ba léegi ba sama doom ji macha allah paak bi mu doon jàngee ba léegi man damay jokkoo ak ñoom dañ may woo dañ may yónnee lettre même parents des élèves yi dañ may parce même Fatou amoon na foofu xarit américaine ku weex tàll mais kooku ba léegi man ak moom dañu am contact ak yaayam ak ñëpp te gis nañ ñoom dañuy ñëw réunion bu ñu tardé yow nag su fekkee da toog léegi li xaw xew si école bi doo xam doo mën a xam sa doom lan lay dund kon mun naa ne jàng bi kon du jariñ dara. kon mhm. doom war nga ko topp góor ñi moom ma waxal la góor ñi moom dañu dem école. soo xëyee ah, su dem école góor ñi duñu dem école. boo xëyee nga gis fukki élèves yi jàng mun naa ne ñaar nga ci gis wala ñett wala lu ci ëpp espagnol yi ngay gis bi ànd ak seen doom yi. ñu ànd ak suñu doomi dem sinon bu nekkee suñu mbokk yi moom rarement nga ci gis góor bu gàddu doomam di ko yow yaay am mm-hmm. réunion man samay doom ñaari école yi ñu doon jàngee ku bokk li mel ni nga ne ISNA dañ daan am même jour bi parent meeting damay def mm-hmm. loolu nag pour nga def ko il faut nga am jot dëgg dëgg dëgg bëgg say njaboot jàppale leen soo ko defulee rek di sa doom dina jànkuwante yàlla rek moo lay jàppale ci yenn yi kon mm. allah ndax gis nañ ne sax ci école yi fii am na parent yoo xam ne dañu get involve ba nga xam ne euh, bu fin d'année jotee bu ñuy joxe sax prix yi dañuy jox parents d'élèves yi ay prix parents d'élèves yi nga xam ne tout le temps ñu ngi ci école bi di def bénévolat kon ah ñi nga xam ne dañu nekk di daw rek de ci liggéey bi est tal nañu loolu bay dem ay bénévola tal nañu suñu ay doom bay bénévola donc loolu euh, waaye mu amaat leen beneen forme racisme tamit bu nga xam ne da ngay nekk euh, euh, black man mhm. tekki ci dëkk bi mhm. nekk ci mag mhm. léeg-léeg mara de taali nga yem ci loo xam ne lii dinañ la indil problème bu rëy loolu ndax am ngeen ci benn ragal benn benn tiitaange ndax li xew léegi parce que da gis koo xam ne il correct day jàngi day def lépp day liggéey euh, xëy rek dajeeg koo xam ne kii dafa raciste mu indil ko problème bu toll ne euh, mar day loolu aussi yéen ban ban ban advice ngeen ci joxe ak euh, ban position ngeen ci am jamono yi par rapport ak tamit li xew ci dëkk bi <laughs> man man personnellement comme am doom bu góor te mi ngi jëm mag li xew ci jamono ji fi mu ne nii daf ma daf ma touché quoi parce que mhm. mun na dal sama doom mun na dal doomu keneen mhm. donc man euh, bi affaire bi amee bon man tout temps damay mhm. waxtaan lu jëm ci affaire u dina dinañuy waxtaan lu jëm ci affaire u nu ñu war a réagir bu policier ñëwee wala genre yooyu mais bi lii amee dañu toog waxtaan ci vraiment ma waxtaan ak sama doom bi c'est pas lii li dafa yàgg am ñun foog ñu make changes ñun ñoo war a changer lii xew ñun ñoo ko mën a changer ndax ñun lay dal mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm. bu ko changer boppam la ko changer bu ko changéwul moom moo ci kii donc loolu ba mu amee mu ne ma dafa bëgg de bokk ci marché yi il a seize duma ko bàyyi muy dem di marché moom kese nañu àndandoo ñun ñëpp dem marché ñu man moom jigéen ki vraiment ñu dem marché ma gis que ni mu ngi doon express boppam ba mu wax fa discours jigéen ki def discours ñoom ñaan ñëpp ñu woon vraiment affaire bi jàpp leen daal. Mm-hmm. bon lii ñun ñëpp la suñu problème bi du problème noir américain du problème mu africain. dëgg la problème mu black black. waaw black ñu daal ñu la rek. kenn ràññee ci africain wala wala wala. exactement problème mu nit la sax en personne parce que ce n'est pas juste. nga rey nit noonu ci dara mm-hmm. donc ñun ñëpp ñun ñëpp sénégalais africain noir américain ñun ñëpp a war a jóg taxaw xeex nii mun naa li ma ko loolu moom dëgg la parce que maa ngi fàttaliku benn jour sama jëkkër dafa ñëw gaari ci buntu kër waa ji xamul mu gaaree otom waa ji ñëw ni ko man maa fi war a gaale affaire genre xëccoo parking la loolu mais Cheikh moo ko njëkk a dugg mu ñëw ne ko waroo fi gaare waaw fii maa fi war a gaare boo jëlewul sa oto dama lay rey ñu ne ko ah après daal di woo police. Mm-hmm. ak ñu dëkkal ci suuf moom dafa bëgg a Cheikh daal di dem soo sottam ñëw taxaw ne ko ana waa ji fii bu fi taxaw ñu koy rey xam nga loolu. Mm-hmm. gis nga ko mu nekk blague gis nga ko mu nekk. ku ñuul waaw nit ku ñuul dama ko man dama koy gis lu bari. lu ko gis bari al na ma ci biis ak yooyu balaa police di ñëw waa daw na kenn ko man ñaata ak koñ bi a ma xam balaa hmm. ñëw na police fekk moom dem na yoon hmm. yu mel noonu dañ koy jànkanteel lu bëri surtout naag ji tool ni man gis na chef buy dama koy nekk di wax di wax su ma ko woowee jotuma ko sax tiit naa foog naa sax ñu nekk sax di werante ak gars yi parce que dëkk bi metti na metti boo xamante ni te da am njaboot njaboot boo xamante ne bokkul ak ñi nga xam ne lu leen neex def lu leen neex def te dara du leen si rek rek dee ak naan si ndox leen mooy fi yéen mm-hmm. képp ku gis muy góor damay surtout xale góor yi ci ñëpp la metti parce que des fois nga gis a jigéen mu jànkoonteeg loolu ci ñëpp ñun jigéen ñi sax day day dañu koy def mm-hmm. dañu koy def man dugg naa bi ànd sama doom kooku sama doom bi laal tànkal te blaak la comme man mu ne mu ne mu ne puusal xale bi da nga koy jàngal nu muy tegee ne dafa xat da ngay bañ ku la laal da mu ne ma parce que yow déggoo sax anglais dégg wallaay ma ne ko yow tam soo ñëwoon sama dëkk mën wax xam nga mhm. anglais wax sama soxla mu ne ma ba ñu mhm. ñoo bokk même arrêt bi ñu wàcc mais dafa wàcc dem yoon ma dem sama yoon wallaay jërëjëf jërëjëf soxna Alimatu soxna Kuku xam naa dama leen di bàyyi ngeen tàggoo waxtaan bi inshallah dinañ ko gën a topp ndax bari na loo xam ne lii ñu ngi koy jànkuwanteel euh, ci dëkk bi ak xale yi te te te luñ leen advice rek doyul donc euh, xam naa ni dinañu ñëwaat ci yeneen plateau yu bare bare bare inshallah dama leen di bàyyi rek ngeen tàggoo ak lu ngeen di wax euh, next génération bi nga xam ne ñoom ñu ngi ñëw tamit yor ko seeni doom comme yéen macha allah lan euh, ngeen leen di bàyyil rek comme comme conseil. incha allah waaw ñu ngi tàggoo di tàggoo bu dul tàggoo doon lañ ko di waxee fa. Mhm. tàggoo mhm. yàlla yàlla bàyyi la fi euh, lafal la ca jàppale la mhm. ba di nga bëgg nii yëpp yàlla dimbale la nga continuer di ko def ba say njaboot continuer ko. Eh, di ñaanal suñu mbokk jigéen ñi di ñaanal xale yi di leen ñaan ci ñëpp nag ñu jàpp rek too bàyyi bu yàggee xëy na génération bi di ñëw ñoom tam dinañu am même bu ñu amul à cent pour cent li ñu am ñoom dinañu am au dara loo xam ne dinañ ko mën a jigéen ay njaboot di ñaanal ñëpp jàmm ak xéewal euh, ba nga xamante ne daal lii yëpp daal dinañ ko weesu ba ñu delluwaat ci suñuy activité ñu ko bëggee yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def si daraje Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal def ko jàmm kooku maa ngi lay ñaan di ñaanal Serigne Cheikh TV yàlla ko yàlla yokku dem ba mu nekk ci ngande si digg Amerika amiin nekkoon tàggatoo bi amin amin amin soxna kuku looy tàggo uh, damay ñaax xale yi ñëw rek uh, ci ñu gën

waxtaan ak moom di xam ay xaritam di xam fu muy dugg di xam fu muy génn lool vraiment am na solo nañu ñu sama mbokku jigéen ñi nañ ci gën a góorgóorlu. jërëjëf euh, soxna Poukou. merci encore une fois ci invitation euh. soxna Alimatou amin ñu bokk ko ñun ñëpp amin amin amin euh, kon mbokk yi gis ngeen waxtaan bu am solo boobu nga xam ni am naa ko ak sama ñaari invité yi nga xam ni macha allah c'est des femmes battantes euh, yoo xam ne ñu ngi nekk fii ci Amérique yor fi seen i njaboot euh, yor fi seen liggéey waaye tamit di def liggéey bu am solo ci zawiya Maam Seydi Hadj Malick bi nekk fii ci New York macha allah nekk ci programme yëpp nag buñ ko limee sax dañuy fàtte ndax programme yi ci zawiya bi bari na ñu ngi ci daayira yi ñu ngi ci togg yi ñu ngi ci ndogu yi ñu ngi ci recevoir gan ñi ñu ngi ci jàngale bi macha allah yal leen yàlla def ay mag ñu barkel suñ ah, leen gisee suñu xel dina dal ndax ñoom ñooy génération bi nga xam ne ñoom ñoo ñu noppal ñoo ñu aw waaye ah, dinañ ñëwaat ak yéen ci beneen i plateau ci seen jotaay kàddu jigéen ñi ndaxte éducation dafa am solo éducation mooy defar ah, doom mooy defar nit euh, te am na ci yeneen ñoo xam ne aussi am na yeneen possibilité ñu defoon jël seeni doom yóbbu leen Sénégal yooyu yëpp dinañ ci ñëwaat incha allah ah. Ah, ñu jox leen dig daje rek ci seen beneen plateau kàddu jigéen ñi bisimilaay may jóge di kañ jigéen ju baax borom sañ-sañ jëfe diina borom di bañ lépp lu ñaaw ba am jigéen ju baax nangoo sëriñ am barke way cërëm fa waddu wele la ko muñal maam Usmaan barke loxo ca kaw roy leen ci maam fa waddu wele roy leen ci maam fa waddu wele borom ngeen li am lu